mën a taxaw meilleur dina ko ko de waaye xam naa ne moom saa yi ma bëggee taxaw sobee la moom su waxtu bi jotee dinaa taxaw sobee la moom bëggoon nañ maa taxawal waaye waaye man maa pare wutoon waaw MP laa wala sax MP sax bëggoon nañ maa taxawal tamit waaye maa pare wutoon waaye xam naa ne su yàlla aanee moom su fekkee ne yàlla doxal na ko ah kenn xamul de waaw mun naa taxaw moom boole ma ko daal daal waaw wala ma taxawal keneen mun naa taxawal Saliou moom MP hmm? bi bëggoon ma ko su ma ko bëggoon dama taxaw su ma bëggoon taxaw MP dama taxaw walaay Azim maa pare wutoon de waaye su ma pare wutoon rek ma pare parce que gars yi ñëwoon nañ si non pareegu ma de pareegu ma après xam nga ne affaire comme yeneen moom. bala ngaa taxaw tamit fo yaa wata naka sagay watan sagay wasana sa famille bi xam booy sa mère bi yooyu sa sista si sa nijaay yooyu noonu yëpp sa am di jaama yi ah, jomma de du ma ko de moom waaw South ah man xam man xam de xar ma waaye ku ne ma fa endu waaye comme barka fi Wakadima moom su la fi ñëwoon ni nga gis xigaan ni yëpp maa gis gars yi génnee seen naxa pani yee waaye fanaa boobu daal gars yi ñu dëkkal fii fi mën a gën a mën a wax waaye man dama fa indi waaye tamit fanaa ne laa gars yi léegi lu ma gis Banjul dama gis toog laa fi gis toog bi xaw ma nag nag gars amatuñ gabe toog si wala lan daal waaye daal na saw daal ah af day métti de al mbalit yi daal af day métti moom xanaa kay ma la ñëw

naa ne mbalit warta nekk problème bi Banjul fii soo ko bàyyi xel waaw waaw te te ni kon kon kon ma ko waxee la rek warta nekk problème biir Banjul fii waaye léegi problème la soo gisee mën a warta nekk problème biir Banjul fii ñun Banjul den ndaw ñun rëy rëy boo xam ne mbalit war naa mën a nekk problème fii nii understand nga soo ko bàyyi bi balam dee ñëw daf dee sometimes i want two weeks am na kër yoo xam ne seen paani mbalit ñu leen jox sax doyul leen ñoo jël si ay saako xam nga def si ay saaku saaku saaku saaku saaku même fees xam nga te loolu xam nga xeltuwul si suñ environnement bi sa àdduna suñ soraan bi xam nga da ngaa cappa ak at the end of the day sax dafa dem ba time boo xam ne dafa xam nga dafa dafa saxee daal sax yi dañoo nekk xam nga te xale yi yaa ngi am ay xale sa biir kër xam nga te ñu ngi xam nga te si moment mu nekk ni at this time xam naa ne say exercice da ngaa gën a exercice cleanliness xam nga ni coronavirus bi ñu nekk nii xam nga cleanliness leen nekk di demee daal understand nga so nego loo xam ne daf so ñu ngi appel daal suñu gars si ci mbiri mbalit bii nu mën a gaawee last time maa ngi doon laajte lan ma expliqué ma moto mbalit bi dafa am problème ma expliqué ne moto mbalit bi dafa am problème démba démba rek am na commencé doon waxtaan lu demee noonu parce que pour collection pour mbalit bi, nga xam ne su breakdown xaalis boobu dañ ko mën a jël pour liggéeyee ko moto bi understand nga xam nga wala am na ñoo xam ne dañ koo liggéeyee sax ay ten dollars yi saaku ten dollars si understand nga loolu foog naa ne ñun Banjul ñun bariwun bari boo xam ne yaa ngi understand xaalis bu bon bon exercice boobu waroon nañ ko mën a def su nekkee ne sa monde li sax fifty dollars si kër bu nekk understand keneen nit mun na koo fay moo mën a ñaari nit kenn nit mun naa sacrifice sa fay loolu parce que mbalit la doo bëgg mu jaaxal sa kër understand waaw baa ñun dafa ndaw kon ni nga ko weele rek at least lu mu bon moom war nañu am mbota mbalit te foog naa ne mbota mbalit yooyu noonu foog na ne su ma jumutee yaa ko firee parce que màggeetul màggeet boo xam ne understand nga war ngaa am problème moto mbalit yu ma gis noonu last time gisoon naa moto mbalit yoo xam ne foog ne su ma rombee si kansu bi dama da gis moto mbalit ñu leen ñu leen fa paak understand nga te dañ waxee ne dañ waxoon ne foog naa moto mbalit yooyu noonu xam moom dee understand daal yàqu fi understand ka mu ngi ko jot am. te te gis hmm. naa comme Gabi. Hmm. affaire moto bi. man suma understanding mooy Banjul ndaw na ndaw boo xam ne Banjul ñetti constituency la man si suma xalaat bu gàttal laa wax ok pour moto boobu noonu benn benn troc di war a round full Banjul di ko dooree Tobacco Road ba Afdaye man foog naa man pour man dafa métti. ñetti constituency Banjul li cover distance bi ni dafa yomba suñ amone ñetti moto benn moto bu nekk di yow di cover benn constituency fona ñun suñ area sa ñun ño gëna ndaw understand nga ñun moto bo noonu xamna ñetti moto mën na last mën na last more than comme yow su benn moto bi because moto bi ni sorry bi mo ñew fi ni moy moto bu wéx bi moto boo amagul ñaari at man affaire yi cancel bi dama si xëy na si tuuti pour wasi lu bëri understand nga because xëy na nu social bi demee ak nit ñi dañ dee gaaw a jom to conclusion ñu ne da ngaa critique understand nga te fekka wallahi du demeewut ñun ñëpp bëgg nañ bëgguñ dara lu dul Banjul dem kanam understand nga man suma idea mooy constituency bu nekk waroon naa mun a am moto boppam soo gisee affaire yi gabe ji KMC bii nii understand nga man KMC dama fa dee dem cause suma gars yëpp a yoo foofu lañ nekk understand nga waaye it doesn't make any sense pour nga ne moto buy war a dooree yow yow Jos Wang mooy collect di collect di collect di collect beneen ba Talinding wala dem ba feneen méegut sense xam nga Jos Wang constituency la waaye Jos Wang ñaata woot dafa am te woot bu nekk am na ni Banjul xam nga lu ma laa wax nii soo demee nga ne Abuko woot la xam nga wala nga ne Fajikunda woot la wala nga ne Bakoteh woot la boo yow place yu ma la wax nii yëpp yëpp ñoo woot yooyu ñoo ëpp whole of Banjul ak seen ak seen ñetti understand nga why not come new try with the new new uh, new new uh, idea of Banjul am ñetti ñetti mutu pour garbage collect because li mu ngey bëgg a nekk problème te warta nek problème li warta nek problème Banjul ndaw na ndaw bo xam suñu suñ ñëwee tuura lambalit sax xëy na elek. sax nécessaire pour mutu bi ñëw mën na xaar bi gëna elek mu door ñëwaat because suñu ñëwee suñu ñëwee si elek sax waste of essence rek ak liggéeykat kat ñoy sa mëna yom noppale ko ji xamal ma wax ni waye su ñëwee tour si Monday da nga am pour xaar ba next week Monday wala ba Tuesday waat ba Wednesday after ten days waaye come on soo nga gis ne yow li moo war a jël si sax dafaa ñëw jaar si benn woot rek foofu rek moto bi moto bi fees bu dem tuuri ji ñëwaat demaat si beneen woot soo war nañoo mën na try at least man laa foog ne war nañoo mën a ñëwee ak loolu council bi war na nañoo mën na try pour ñu am woot constituency bu nekk mu am motoom xam nga lu ma la wax nii ok Banjul South Banjul Central Banjul foog naa dafaa gën a yombal liggéey bi sax understand nga so su leneen waree am si diggante bi comme moto yi war a am problème comme ñu ne ok moto saa bi am na am na breakdown wala lii sax mun nañoo mun nañoo mun a facilité bu central bi ñëw toppatoo fi moo toppatoo ba pare ñëw sax yow ñoo toppatoo waale fii understand nga waaye bële koo fa na leen sax dem ñu xam nga fu ma waxee dem maintenance because xëy na maintenance bi sax du war a nekk comme whole other thing understand nga waaye rather than benn moto di war a dooree fii BCC dem. di collecte di collecte di collecte soo kooku mun naa collecte ñetti fan tuuti ak si fii maanaam soo fi ñëwoon démb ngaa waaru démb waxtu bi soo fi ñëwoon mooy fii nii yëpp moom la and it is very crazy xam nga comme lu Malick di wax nii ñu ngi si jamono boo xam ne booy doo entertain yéen a yi because ñu ñaa try pour daw yéen xam nga comme yéen a affaire yi understand nga soo nga war a dëkkaa loolu noonu booy fa ay three four days xam nga dañoo wax rek for the sake of affaire yi Banjul la and it concerns ñun ñëpp la concerne bàyyi xajuwuñ ci wala kële ŋaañuñ kenn criticisation dañoo wax ne bugga lu baax so ñun ku bugga lu baax tamit pour Banjul gëna lu ñu koo bugga pour ñu make things mu mu yow mu straight rek xam nga xam nga maa waxee ok ok yow rek. because si sa biir wax yaa ngi wax because ñun loolu daf ñu sonal ñun ñëpp yow all Banjul la ñun loolu daf ñu sonal because dañ dee gis bi ñu ne non soo waxee yaa ngi loolu moo am loolu moo am ok man comme man. lay lay sama ngi nii moom yo na xam nga ñun dañ dee dañ dee dañ dañ dañ create so much time on the social media understand nga da nga try pour speak sa mind o nga speak sax pour nga wax lo xam na opinion la ben authority sa authority, autorité mun na koo jël hit na wax bi sax mun na meaning yo si yo, way mu nek lo xam dafa njëriñ whole community bi understand nga nit jëlé ko from fofu nonu boy ay ay ay fake profile ñola attack, dila di la di la wax yo xam ne mu ngi mu ngi nek di go on mu ngi nekk di go on so dang dee dem ba nga xam sax dang dee bugg a dang dee préserve sa boppa xam nga nga ne sax ok man anything lu concern ñii sax duma ci wax xam nga an su boba sax yow yo yo yow lo nekkatuloo on sax nga li ñoo wax moy xam nga war nañu mëna hijalante ubi ubi holi ba ñun ñep ñu su lay gisee lu bon si man sax nga mu yo mu wax mako ko ma jël ko ene good faith xam brother la sax nga ñun ñep yang Banjul lañ ya oke. jël lu ma ok waye su fekkee ne yow sa job bi ni dama ñëw wala si benn yow critique si nga wala jël pour mëna dem si benen level xam nga yow su fekkee ne yow yow yow li nga ne yow lolu mo correct lolu rek mo correct kon yow do aga si benen level yow fi nga em loolu rek nga em understand nga waaye da nga am pour da nga am pour create room bo xam ne pour critique ci la nga jël ko te bul defanté ñom instead sa da nga leen a gërëm xam nga xam ne man this is my weakness fi la wara a pour in order pour ma improve dem si benen level bi jëlee nga luma la ni way fi nak yalla fa def nak mu nekk all the way around bi hitna suñ maturity mo moo mo mo moo fofu non wala suñ understanding understand nga fa ma so dañu ñaan rek ñom ñi nga xamné ñom ño ñoo ci position yoy non ñom yalla yalla may leen that wisdom pour ñu xamné su la nit ki not every time daf la daf la hate xam nga fa ma so dañu criticize ñun ñëpp president bi pour pour mu tek ñu ci right track bi té ñoko ñoko vote in so ñun daf ñoo saaf ñun raada ñun nekkuñ sa saafanam moom mooy suñu savant because tey su demee ba nga xam ne moom moo war a nekk chief of cop yow yow yow naka commander in chief ñun la moom benn carte la am jabaram benn carte la am understand nga soo mbokkaam mi ku nekk benn carte la am soo su munee am moo daan two hundred thousand votes yàllaa yàllaa yow ak man ak keneen ak keneen ak keneen soo suñ ko criticisé moom mu ñu ko kon means moom li moo def xamu ko yaa ngi understand so this waaw kon nu ko Saliou waxee rek xam nga man nu ma ko mën a expliquer mooy lenn la te nekk si jamono boo xam ne ñu bëri duñ dee understand leen la ni ki su nekkee si liggéey su nekkee mu ngay def lu baax nangul ko ne lu baax lu moo def mu ngi koo def understand su nekkee di def lu bon tamit su nekkee ne mu ngay def lu jubante ko ko defee mu nekkat di def lu baax understand ak si yi fi bàññul la bàññul ñëpp ko bokk waaye man dama gis leen loo xam ne biir bàññul mu ngay distop ñëpp ak understand xam nga about this political thing understand ko waa nii kii su nekkee UDP wala kii bu nekk doy wala kii bu nekk APRC moom suy liggéey lu lu bon rek nga gis si si lu mo on understand lu baax si lu mo def yow do ko wax understand wi is very wrong su ñëwee une temps fi liggéey dañ ñëpp bokk loxo ñu on understand nga wala ñu mën a dimbali wante ñu yokkalante xalaat ci fi manam emu on understand yi leen magante te leen joxante cër ñun ñëpp understand do ci xalé bu ndaw sam ngi dem ba hol bena position bo xamni sa bu ko xeeb ci position bu hol ni bu nekk di saafu ko soo ko mënee dimbali dimbali ko understand demal ci ba si nga ne ko tayar nga improve ci li xam nga ko defee nga mun koo dooleel ko defee mu jàngee si loo xam ne xamu ko woon understand yaa ngi noo wax si affaire yi affaire yi mbalit bi nii ñëwaat rek ñun def su ko defee mbalit bi mun la si tuuree kaay fi hamana la den lap moto yo xam yang yaa ngi understand ñoo ñëw pour collecte si moto ah, li fi nii su ko defee ñu mun reduce mbalit muy am si biir dëkk bi understand nga mbalit bu bari bu nekk biir dëkk bi la su den dem ba tollu si time boo xam moto mu ngi nekk problème suñu moto yëpp nga am breakdown understand nga te mënuñoo mënuñoo am beneen moto boo xam ne mën nañ ko replacer moto yooyu noonu leen dem ñu ñu pousser ñu pousser saat yeneen i moto su nekkee ne council na mën naa afford pour uti moto mu dem lobby mu tray mu dem lobby su nekkee ne loolu rek fa siis wala su nekkee ne dañoo dem pour pour dem ne dañoo dem aba moto understand wala dañoo dem pour louer moto parce que gis naa am na nga xam ne dañ dee louer xam nga part ba pare delloo moto yooyu ñu use moto yi su nekkee loolu la ah ñu seet xaw bees naka la nga mën a def ni time amul mbalit everyday thing la everyday nit a ngay tuur mbalit biir këram constant te dem leen ba tollu fu time boo xam ne comme ni ko Saliou waxee mbuta mbalit di gaaw a ñëw jamono mu nekk nii te soo ko bàyyi xel exemple ma jox la benn exemple mu nekk nii xam nga nawet bi fu mu nekk nii mu ngi wane exemple mu ngi wane sign te nawet bi su ñëwee a métti daf dee gën a xam nga daf dee gën a stress si la xam nga mbalit bi dee gën a seen xam nga seen bi nag day gën a garaaw xam nga lu ma laa ni te doo ko mën a bay sa biir kër yaa ngi fa amee ay xale xam nga nga ay mag ñu ngi fa xam nga soo nekkee young man sax da nga ko de mën a dégg waaye yaa ngi fa am mag yaa ngi fa am ay xale xam nga sax te xel tuwul si ñoom understand nga lu ma laa ni even yow sax bu fa nekk sa xel tuwul si sa si sa wér bu yaram xam nga soo yooyu dañ ko war a bàyyi xel xam nga ñu try seet xaw bes naka la ñu mën a dimbale wante nañ ñëpp ñëw daal nekkatu gëra daal ñu liggéey daal foog naa loolu moo gën a important waaye man xaajalo bi daal dafa bëri daal dafa bëri wax bu sew bi dafa bëri biir bañ trop is too much xam nga ñu bari ñu ngi ko jàppee yi politique man ñi fi politique du ma ko dee wax understand nga parce que man politique moom waxuma si dara bokkuma si understand nga laa ni man football la xam nga football ma tax asuma jóg ak suma liggéey bi understand nga ni fi politique man du ma si dee gaaw a dugal understand nga laa ni waaye rafetut understand nga dang si dee yi ngi si dee dégg bari te du ñu dimbale ñun bañul den daw be yow fu mu nekk nii bañul soo ko bàyyi xel ñu ñoo xam ne den bañul sax gën bañul sax fu nekk nii ñi ngay tere est naka la bañul parce que ñi ngay gis sëy suñu am suñu biir dëkk bi te Banjul dafa wala ne yow gis nga gerte bi ni mu demee Banjul dafa wala ne ba nga xam ne campé bi sax soo campé sax pour nga ñibbi sax problème la di nekk wala yéen exemple yéen laay samba maa si laay laay évidé mu ngi fi laay évidé mu ngi fi xam nga laay évidé mu laay soo ko moom moom fii la juddoo fii la yoroo fii la magee understand nga laa ni ñoom ñooy suñu koto yi understand nga ñoom ñoo ñu woon yoon bi naka la laa ni nga gis ñoom mënu ñoo bañul bàññul everyday dañoo fay pass te pass bo noonu sen poste la mo jige ken joxu leen ko everyday soo ko calculé tee rek everyday nga fay paas everyday samedi a monday ba dimanche lo rek xaliss la té mo fu mu dëgg dafa sori ba ko xoolal xolal fiya bo yaa dañ ko fay everyday monday ba dimanche xam nga mo la ni lu mo la wan bañul so fi dëkke so fi yaro, so fi mangé even doo sax nga gëna a sa nga dëkki benen place sa style na dang wax sa bopp de yow waa ma ni direct wa bañu mu ngi moy do sa yaram bi wala sax so ñun ñu mëna def rek moy di ñaan council bi ñu leen di ñaan ñun togun fi kon niko lay way ak ak sañu togun fi christas sken dañ tok pour naka lay yoko ideas am yokonté tok watan ni gis nañ ne ñun ni neen la fi dafa xat council ñu fa nek yépp ñu sun ay koto leen sun ay anti sun ay sister sun ay mak ñu ni neen leen ñu ñepp xamantene dañu dox tassé jamalante kafré xam nga wala ni xam nga tok naan ataya xam nga loolu dara daaw ko waaye eh, suñu ñëwee intaama fi liggéey man foofu laa day wooyee intaama fi liggéey su jotee ya. bul gis xale bi sax nga tiim xale bi xeeb ko soo ko mënee laaj sax yow xale bi sax nga laaj ko ah foog lan la ñuy mën a jox si suñu liggéey bi ni ay nii déglu si lu mu laa wax dëgg la mun la laa mun laa ñàkk a wax lu bari de waaye mun na laa wax lu ndaw loo xam ne soo ko déglu sax lu ndaw loolu mun na laa dimbali ëllëg si sa liggéey ko defee nga dem nga yokkante si lu mu la wax noonu so man loolu rek la amone pour waa council bi ci mbirim balit bi nañ traité naka lañ ko mëna takulé ñu mëna mën ni mu ngi mëna xé issue parce que démoo njaay laa gis mu ko def on understand nga té stédos bo wono ñu ko view ñu bëree sé wax sen opinion ñi né ci walu ba ñi understand nga te nekkul loo xamna daf ñoo dimbali ay facebook lu fa wax sa ba dugg xas ba dugg rek ñepp ko gis aduna bi ñepp ko gis understand nga das min né xam nga dañ ñu wone ah council kan bi ni ani ah, ani ah, ani, ah, demé té xam nga té démé fa nonu so ñom ñoo ñu mëna a gëna ci expliquer expliqué muna nit yi nit yi mëna xam lan mo nekk di go on su ko défé xam nga nit yi mëna relax parce que mën lo jël nga jël jël xaliss bu bëri boobu jëna ko benn moto ya nga ma understand ko nga ne moto bi diw sanga moko use in that amount xam nga that amount of money xaliss dafa bari loolu is too much si war nga war ko jëna ci benn single moto rek waxuma la four wheel ci su xaliss xaalis boobu la tolu is too much si benn foowil nga war a jënd rek nit war koo use understand nga loola ni si loo xam ne am na yenn issues yoo xam ne ñu ngi ko war a takkul bii fii nga xam ne si am problème every day every day ting la nit jàng si am problème loolu kore ko su nekkee ne loolu moo xapun su nekkee ne loolu am si su ma wax loolu kore ko war nañoo seet leneen la leneen lu ñu mën a def xaalis boobu noonu la daan ñu junne ko benn moto kese bi nga xam ne ñu am problème suñu suñ suñ suñ revenue, on understand nga loola ni parce que soo ko bàyyi council bi sometimes dañ day dañ day caalit ne xaalis amul understand nga wala ni te nekkul ne every day ñëpp a day fay taxe di si revenu am nga collection understand nga wala ni parce na ñoo ne nekkul ne every day dañ day fay suñu leadership man dama dama foog ne starté ko comme li ma la doon waxee ko si président bi ba si suuf xam nga xam nga central government ak local government xam nga ñoom dañoo war liggéey side by side understand nga ñoom ñëpp ñun lañ fi nekkal because ñoom ñëpp ñu ñoo leen fal xam nga lu ma la wax nii kenn nekku fi boo si kenn yaa nga gis léegi li ma wax mooy dañ la war a xool accountable xam nga xool leen accountable mooy comme su fekkee ne comme li nga alate nii léegi nii xam nga dañoo dañoo am pour góobaay loolu noonu loolu is not justifiable ñoo mënuñoo justify seen boobu kon dañ fiil ak kon foofu mënoon a nekk nag mu nekkoon fayak nekkoon liise nekkoon ke anybody fiil nga as a duty cause yow yow sa duty kon yow fiil nga yow ñi nga represent wala ñi nga govern as a mayor warloo def loolu mun loo jë génnee xaalis bu toll three point something million dollars jënd ko moto ba pare am problème moto buy collect si yow garbage loolu kenn mënut a kenn mënut a justify loolu duñ duñ duñ accuse kenn nag xam nga lu ma la expliqué duñ leen naan comme non dama ko yëgoon nii si wéyi béy nii rek waaye xam nga comme li waxtaani mbedda la dañoo waxtaan comme waxtaani mbedda rek ku ko mun a gis rek nga waaw nga nga seetaan nga understand tamit waxtaani mbedda la xam nga luma la wax ni office nekkul nekkul leneen lu extraordinaire dañoo waxtaan waaye dañoo waxtaan tamit teg ko tamit si yoon understand nga luma la wax ni lii su ko su fekkee ne loolu lu am la dañ ñu fiil as a yow as a waa Banjul ñun ñëpp understand nga from the head nag yow to to everybody understand nga si ku mun a concern rek fiil nga ñu because mënuloo def xaalis bu bëri boobu noonu yëpp xaalis bu bëri boobu noonu yëpp ba pare am problème yi moto buy war a jël si gabéj naka nga ñëw yow naka nga mën a justifier loolu loolu dafa am fen dëgg la maire bi dafa entitled pour am pour am moto loolu ñun ñëpp xam nañ ko understand nga waaye tamit affaire yi warta nekka comme warta nekka fi selfish xam nga yow soo war soo waree nekka njiit lu mel ni full capital nga nekka njiit bi xamal ma laa ni war ngaa mun a selfless ba nga xam ne man ok du ma du ma demee jënd ji moto bi ok moto bi mu ma cost four million dollars 4 million dollars is, is about 80,000 thousand dollars xam nga luma la wax ni man dama ko jaay ben mutu ma ñew man dama wara make sure kon cancel bi problème yi leneen la ñoo am waaye du utee yow yow dafa outé ak problème yi ñoo collect ci garbage su dé dañu am mutu yi sax ba paré dañu tiaj comme KMC sax xam nga sa lolu bokut wa ñun garaw mun nañoo subsidize ñun for for our own safety understand nga ñu fay ten dalasi grawut or whatever man da suñ kër bi res asoot xam naa ne dañ ko doon defi because moo laa gënal sax yow sa boppa suwaa xam nga nga fay five wala ten dalasi ñu jëlal la gabe yooyu noonu moo laa gënal sax mu ñàkk moo xoolal nga ñàkk a fay ba pare mu nekk fa understand ma la wax nii loolu su fekkee ne loolu am na loolu loolu loolu loolu ma ne rek la de waaye la to be koo nag failure moo nekk loolu failure one o oh one la mun loo jënal sa boppa luxurious car bu mu toolu noonu ba pare yow ñun yow ñun amuñ moto bu ñu jël si suñu mbalit yi so this is how it dañ koo wax rek dem gamtal woot xaw ma naka woot fa foofu noonu si mocciwari bi naka foofu man woot la ah. Dead House man woot la waaw dañ koo wax rek dem Dead House nag dee waaw dañ koo wax. waaw léegi bala ñoo dem rek Saliou kon ñu bàyyi leen ku nekk nga joxe sa final words lan ngeen am kuy wax nga xam ne ñooy seetaan programme waaw final words yi mun naa bañ a gudda you know dañ leen a gërëm rek yow ak sa waa ji nga àndal you know di leen ñaanal because li nga def ni tamit xam nga rek mun naa dem juri ji leneen understand nga nit ki tamit su la ñëpp xeebee sax yow bul xeeb sa boppa loolu moo gën a am loolu moo gën a am solo understand nga góomal sa boppa góom li nga def rek xam nga lu ma laa nii nga def ko with passion yaa ngi understand so soo ko defee with passion yow leneen ak leneen def la see fekk understand nga am na suma benn bro bu ma dee advice loolu every yaa ngi jëli soo góomal sa boppa rek so di leen ñaanal di leen wan ne tamit xam nga rek dafa war a nekk comme na divers yow bul mere nit ki be bene doo fa dem defi fa waxtaani mbedda waxtaani mbedda la yow youth man nga yow suma bro da nga understand nga man xam naa la siin si before year 2000 laa xam bi ma am nii laa xam yaa ngi gis soo borom baax nga dama laa ñaanal yow yaa saay xam nga rek yal na leen yàlla defal jaama yal na affaire yi yokku ba àggatu beneen level jërë ngeen jëf